Euh, importance bi nga xam ne euh, jox nañ ko màggal gi parce que gis na njëriñ li nga xam te ne euh, daf koy def ci Sénégal vélo économique bi wax naa ko sànq maanaam li nga xam te ne boo ni màggal gi dafay dugal koppar gu bëri gis nga bu màggal amee ñi nga xam ne ñooy confectionné ay t-shirt waaye ñi nga xam ne ñooy jaay yére tailleur ñi nga xam ne ñooy jaay ndugg képp koo xam ne rek yaa ngu yëngu ci li nga xam te ne moom moom boobule fànn da nga ciy gis sa bopp bu baax a baax may ba naka gisee màggalu ren bi ak njëriñ ji nga xamante ne amal na ko réew bu am solo. Mhm. parce que tey soo waxee màggal Touba automatiquement rek économie réew mi day yëngatu parce que ñëpp a gis seen bopp li muy waral nag ak li muy wane monsieur Amadou Bamba Xaadimul Xaadim liggéey bu rafet gi mu liggéey moom la ko suñu borom fay. fay goog nag moo walangaan dem ci njaboot gi yëpp. tey boo xoolee jaaykatu ndox bi même su daggee paas ñëw ak lu mu mën a paasal njabootam bu ñëwee dana ci gis boppam. comme ni nga ko waxee léegi ñuy defar t-shirt domaine boo lamb rek ba ci transport beeg ñëpp dangay ngay yëg ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Xaadim li mu liggéey laal na ñëpp kon nag tey njëriñ bi màggal gi lamboo dama wax sax ni xaalis bokk na ci li ci gën a tuuti mais njëriñ li mooy tey diine yëpp mooy sagu tey koo gis mi ngi xotti yëre bu bees taxaw pour mën a sagal jàmbaar ji nga xam ne tey jii mooy jàmbaar dina lislaam yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla yokk leeram tey daal réew mi yëngatu na bi yëngatu na ñëpp gis nañ seen bopp wax naa ko léegi maay bi parce que gis nañ bu màggal Tuba amee mën nañ ne képp koo xamante ne da ngay yëngu ci wàllum économie da nga ciy gis seen bopp ba ci sax ki nga xamante ne moo yor ndox di ko jaay impact bi nga xamante ne am na ko ci réew mi waaw xam nga lu waral loolu mhm. mooy li ma la wax léegi rek mhm. xam nga tey ji boo xoolee Sénégal mhm. su mbir mi tàncoon rek nga fekk ni kilifa diine gi fa dóowul wallaay ndeysaan parce que seen fudd xajul ci dara mbàkke bàll ay parce que bi ñuy daj ay coono mhm. lii lañ bëggoon mhm. réew mi nekk ci jàmm mhm. bitim réew nekk ci jàmm tey bu nit ñi nangoo jël avion di ñëw am na ñoo xam ne sax dañuy jël avion pour ñëw jaay si yaa ngi dégg yàlla nañu yàlla fayal sunu mag yàlla nañu ko yàlla fayal parce que tey ji boo xoolee képp ku ci aye mm-hmm. da xam ne li ñu liggéey rek moo moo tax ñoom li ñu liggéey bu dul dara mm-hmm. dara du dara mm-hmm. kon nag yàlla na leen fi yàlla bàyyi fi njaboot gi boo xoolee liggéey bu rafet bi mu continuer nga xam ne sëñ Tuubaa jógewu fi ay tajiliyaat la am yàlla na jàmm yàgg ba nga laaj ma leneen fa tabarakallah allah ah, may bu ñu naan tey dañ koy sellal ba mu sell même waxee eh, na na transmettre mbégte bi nga xamante ne ñu ngi koy dund jamono ji fi nga xamante ne moo di ci Touba Mbacké Fatou Kiné comme ni ma ko laajee may ba la koy laajee nga gis ne jamono ji économiquement réew mi yëngatu na bu baax a baax waaye itam képp koo xam ne rek yaa ngi yëngu ci ak fànn boo mënta ne gis nañ ne gis nga sa bopp bu baax a baax ci màggal gi ak importance bi nga xamante ne màggal gi am na ko mais alal ji muy def ci li nga xamante ne moo di gafaka réew mi macha mhm. xasee ba jot nga mhm. ku nekk daal di takk daal di fëkk loo xamante ne yoroon nga ko si sa taatu valise mooy lan maa bi wax na ko léegi képp koo xamante ne yaa ngi ci transport bi da nga koy yëgal da nga koy yëgal sa bopp euh, xam nga dañ doon wax naan cherté de la vie dafa am fii ci réew mi mais màggal gi dafa mel ni dafa dindi loolu lépp daal di koy tegee be côté soble bi daal di ñëw pomme bi daal di ñëw lépp daal di ñëw commerçant yi daal di daal di siy gis seen bopp te yi aussi ñoom tamit ñu daal di siy gis seen bopp ah xam nga loolu dafa nekk loo xamante ne lu neex la xanaa xamoo euh, ami suñ Tuubaa dañ ko laajoon sa victoire yi bari yii nii fañ kañ nga koy feete mu ne ko man du ma ko feetee léegi sama askan ñoo koy feete ñun instant bi dafa mel ni ñun loolu moom la ñuy dund ndaxte ami boo xasee ba teg sa tànk Touba ah beneen affaire moom lay nekk xam nga lu ñuy wax la ville sainte c'est pas hasard ñuy wax Touba ville sainte la parce que boo ñëwee mbégte moom ngay indaale foo jëm moom ngay yóbbaale moo tax mu moo tax économie bi dafa mel ni sax nit ñi sax yëguñu ko parce que nit ñi bu ñu gisee gane dañuy kontaan képp ku nekk rek lépp loo xamante ne yoroon nga ko rek danga koy jël nga daal di koy nga daal di koy génne def ko ci màggal gi te ami kaay ma wax la benn affaire sàcc la wax la ko lépp loo xamante ne def nga ko si màggal gi buy ñëw double leen rek wala mu nekk triple. déwénee boo defee benn. bu def boo defee benn rek. boo defee benn déwén fukk ngay def. Cheikh Béthio waxoon na ko. Mhm. su ma rayee ginaar laa ko tàmbalee di rayal. Mhm. ba ci gileem. kan mhm. ci sëñ Saaliw. kon xam nga loolu rek jeexal na wax loolu moo waral màggal lépp loo ci def rek day ñëwaat si yow macha allah mu nekk loo xamante ne ñoo koy rafetlu bu baax di ñaan yàlla aussi mu gën a continuer ba yeneen at tamit ñi ku nekk tamit di ci gën a gis sa bopp ci économie bi. ñu ñaan rek euh, ñu teewee ko ay at yu bëree bëri kenn bañ ci manqué waaye képp koo xam ne euh, def nga ci sa ñaar dërëm bu déwénee nga gis yokkute boo xam te ne fa tabaarakallaahu macha allah ki nga xamante ne moo di borom bés bi jar na ko waaye Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jar na ko ndax liggéeyalul boppam dong naa la moom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul l'islam la liggéeyal waaye itam fierté la pour euh, sénégalais waaye fierté la pour monde entier yëpp takk jóg comme ni ma laaj ñeeg laa la koy laajee bi nga xamante ne am na ko euh, ci euh, li nga xamante ne euh, mooy di Sénégal gis nga bu màggal jotee ñépp dañ ciy gis seen bopp fa tabaarakallaahu macha allah. Mhm. moo ko ñaanoon borom bi nag. Mhm. te kii du ñaan borom bi mukk may seg màggal Tuubaa Sëriñ Saliou dafa waxoon ni lépp lu ci waay def ñaar ñi nga xam ne danoo ànd kii di def kii du def kii du def du masa yem ki ciy def mooy raw ki ci dul def boo defee ren fukk. boo defee ren ji fukk bu déwénee ñaar fukk fanweer ñeen fukk day ñëw loolu sëriñ bi moo ko ñaanoon yàlla suñu borom nga xam ni comme li ngay wax ci mbégte mi rek mhm. oto yi sax bu ñu ci dajee dugg ñëpp dañuy daal di nekk ay mbokk ndax parce que dañuy root si ci Touba mhm. te fii boo fi ñëwee jàkkaarlook soroot bi da ngay xam mbégte mi ngay yëg sa wàllu bopp yow loolu lépp sëriñ bi moo ko ñaanoon ci ay askanam mhm. ndax euh, neex-neex yi yëpp moom fekk ko fi ndeysaan moom <laughs> métit gi la fekkee rek sët yi moo jariñoo lépp ak mm-hmm. doom yi mm-hmm. kon nga xam ni nitu yàlla rek ay nitu yàlla uh-huh. lii la ko sun borom fayee mm-hmm. tey lii dafa bokk ci pay yàlla fay sëriñ tubaa màggal ku fi ñëw rek di nga xam ni carrément yàlla fay na sëriñ Touba bu wér a wér a boo xoolee ñëw bi ñi jaay gerte caaf ni nga ko waxee ñi jaay ndox ñëpp ci gis seen bopp ñëpp uh-huh. même ñi jël loxo di yalwaan sax dañ ci gis seen bopp uh-huh. kon nga xam ni lii dañ ko war a joxaat gëdd ak yelleef gu mat sëkk. Mhm. xam ne nag Sénégal événement bu mel nii nag foo xay réew mi fu ne leen nit di jóge di ñëw. ah wax dëgg yàlla nag war nañ koo joxaat ak xam ak yelleef bu wér a wér a wér a naa ñu yaman ni foofu. kon takk jóg la déggee euh, mooy euh, liggéey bi nga xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul liggéeyal na ko daanaka mooy law ba ñun ñi nga xamante ne sax wala mooy law ba ñi nga xamante ne jamono ji fekke wuñ ko woon wala fekke métit ba di bénéficier wu li nga xamante ne moom moo ko liggéeyoon. xëy ci laa jariñ yow mi may laaj ci ngay jariñu dëgg la <laughs> kon loolu lawtan la day law rek di dem mm. te amul amul yemukaay nag quoi waaw sëriñ bi foo ko yem rek fa la yem mm-hmm. kon nag rikk nañu xuus ba ca biir mm-hmm. ba ca biir lun mën ak lun mënul lépp ñu def ko ci màggal gi rek mm-hmm. te lépp di ndigal. <laughs> waaw ah, macha allah yéen ñi nga xamante ne yéen suñu ay mbokk internet safoo ànd ak suñu ay programme seen émission bi nga xamante ne moo di le soir à fois nekk rendez boo xamante ne euh, tàmm ngeen ko waaye nekk rendez-vous boo euh, xamante ne itam euh, saay bu amee rek dañuy gis ne yéen a ngi ànd ak ñun ñu topp duñu suivre saa su ne di leen wax nag ngeen partagé live li nga xam partagé li nga xamante ne moo di live bi nga képp koo xamante jotagul notification moo mën ko daal di jot dañuy daal di rek wéyali li nga xamante ne moo di waxtaan bi wax li nga xamante ne daanaka moo ëpp solo wala sax nekk na problème mu wu li nga xamante ne moo di dëkk bu sel bi di Touba muy li nga xam ne moo di ñàkkum ndox mi ñàkkum ndox mi gis nañ ne daanaka ay ati at ngi nii Touba mu ngi koy dund te ba léegi gis nañ ne ñàkkum ndox moomu jóge fi ñàkkum ndox moomu nag euh, mën nañ ko comprendre d'une part parce que gis nañ ne euh, askan bi nga xamante ne ñooy nekk biir Touba wala sax dayo bi nga xamante ne nga gis ne nit ñi ni ñu toll di ñëw biir Touba parce que buñ ne màggalu Touba nekkul màggalu murit yi donc màggalu tijaan yi dañ fiy ñëw xaadar dañuy ñëw laayeen dañu ñëw ba sax ñi nga xamante ne bokkuñu ak ñun diine dañu nga gis ne dañu leen di invité ñëw ci li nga xamante ne moo di màggal gi kon mën nañ ne màggal gi dayo international la am waaye universel la màggal gi daal di am waral ñàkkum ndox googu maay ba à chaque fois dañ koy faral di nemmeeku gis nga njiitu réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba mu ñëwee ci tubaa li mu wax ak ki nga xamante ne moo di xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké bokk na ci nekk dinañu fexe ba li nga xamante ne moo di problème mu ndax moomu ñu mën ko régler ci fi nga xamante ne moo di dëkk bu sell bi le waaw wax dëgg yàlla am na li nga wax lu am solo la ni président def rek loolu la war a def parce que ñoom ñu ngi doog a yegg si te chaque jour dañuy wax ne balaa ngay naafile fay say boru julli soo ñëwee fekk am lu yàqu pour nga joyante mun na xaw jafe tuuti mais ay jàmbaar lañu parce que tey dugg nañ ci biir dëkk bi wër nañu gis nañu par exemple niñ taxawoo pour ndox bañ a ñàkk nit ñi nag bu fekkee àdduna ñooy daje fii parfois am na yenn détails yu ndaw yoo xam ne du mën a ñàkk fii metti mu xoos fa directement wax ci mbënn mi parce que ku bëgg a defar wala jëloo décision pour defar doo sañ loolu kon nag ñu profité occasion di nuyu son excellence le président Bassirou Diakhar Diomaye fay di nuyu tamit le premier ministre Ousmane Sonko. Mhm. gis nañ tam bi mu ñëwee ak taxawaayam. Mhm. yàlla yàlla gën a dolli sutura. Mhm. ministre yeeg ñëpp vraiment seen taxawaay pour le moment. lépp a ngi rafet. ñun dañ fi nekkal askan wi. di xeexal askan wi. wi ne wii ñu ni wii bu askan bi ne noo ñu bi ne wii ñu ni kon nag. xanaa yaa fi nekkal askan wi nag. non non ñun ñëpp askan bi lañ fi nekkal. ngi dégg président askan bi la fi nekkal. Mhm. ñun ñu nekkal fi askan uh-huh. kon ñun ak président la de la république. ñoo far la ak 5000. Mhm. kenn mënul dem bàyyi sa morom. léegi nag ñàkkum ndox mi. ku la mhm. wax méttiwul métti na. mais nag ñi ñëw dañ ko fay fekk lu gën a métti lañ fekk. mais nag ñu ngi ciy def seen kéemtalaay kattan. te gëm naa ni màggal gii di ñëw. yi fi gën a yàmb. ak le président ak équipe am incha allah. voilà euh, Kiné comme ni ma ko laajee may ba rek laa la koy laajee ñàkkum ndox mi ñu gis ne nekk na mbir moo xamante ne yàgg na biir euh, Touba daanaka njiitu réew bu fi ñëw euh, baa ngi koy bëgg a le mais ba tey gis nañ ne mbir moomu la day persister rawatina ci période màggalu Touba pour yow jafe-jafe yooyu le lan moo ko waral ak lan lañ mën a def euh, pour saafara ko une bonne fois pour toutes. su ko amee sànq maa la doon wax fi samay kàddu ma ne la euh, Touba dafa nekk dëkk boo xamante ni képp koo xamante ni euh, ñëw nga fi euh, ñoom ñi nga xamante ne dañ fee dëkk dañuy daal di fukki seen taatu walis daal di génne lépp loo xamante ne nekk nañ nekk na fa même bu fekkee côté nekkul côté sëriñ bi balaa may ñëw ci ki nga xamante ne mooy son excellence même bu fekkee nekkul ci côté bi ñoom ñi xamante ne ñoom ñoo dëkk ci biir kër yi dinañ fexe à ce que bépp gan boo xamante ne ñëw nga ci biir kër gi di nga fa nekk à l'aise ba nga xamante ne ndox du la sonal ah te nekk loolu dafa nekk loo xamante ni lu rafet la léegi son excellence daal di ñëw daal di bëgg ñëw lijjanti li nga xamante ne moom mooy ndox mi mais man euh, ami man gis naa ni loolu xaw naa xaw naa wàññeeku par rapport ak euh, ak année bi année bi passé ndaxte man euh, barki démb rek mhm. gisoon naa gis gisatuma fi sax laay wax mhm. comme li ma fi daan gis bu njëkk mhm. xam nga bu njëkk dama daan ñëw ndox mi dama sonal genre yooyu noonu ah balaa may ñëw si comme ni nga ko lii ma laal ci mbënd mbënd mi ba pare euh, gis naa ni euh, la plupart zone yu bëri dañ koo dañ koo pompe fu nekk rek dugal nañ fa aw pompe daal di dindi li nga xamante ni moom mooy nekk ndox mi parce que euh, tout nuñ koy waxee màggal dafa nekk loo xamante ni kenn waru ko rate macha allah xam nga sëñ Touba sax dañoo ne nii sax fépp foo nekk rek war nga faa màggal mais Touba moo nekk foo xamante ne daal gis nga ami comme ni ma ko daal di waxee saa sune ne boo fi ñëwul rek yaakaar naa ne daal euh, màggaloo uh-huh. léegi ñu ñëw ci li nga xamante ne nag moom mooy ndox mi nga xamante ne moom la ñuy naan euh, chaque année dinañu fi am problème boo xamante ni si robinet yi lay nekk affaire yooyu euh, wante ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk Touba nee naa la ñoom jaral na leen ñu daal di fëkk seen taatu foo xamante ni am na ndox rek dinañ ko daal di jëli daal di koy indi ndax képp koo xamante ne gan nga biir Touba doo naan beneen ndox bu dul ndoxu sachet wala nga naan ndox yi nga xamante ni moom moo nekk ci bouteille yi te aussi c'est à ci sant waa bu baax a baax a baax ndax lépp loo xamante ni mën nañ ko rek ñu ngi koy def rek ngir rek pèlerins yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci biir euh, màggal gi ñu mën fee nekk à mais ki ne yaa ngi wax sànq lu am solo muy wàllum li nga xamante ne moo di mbënd moomule parce que gis nañ ne daaw cérémonie officielle amuloon ndax ndox mu bëri waaye itam ndax nawet bi nga xamante daanaka foo tourné ci Touba ndox ma mu ngi fa fees dell mu mel ni uh, ki nga xamante ne moo di son excellence monsieur Bassirou Diomaye naam sax temps bi mayu ko ko waaye def na kem kattanam uh, ba mu jàkkaarloo ki nga xamante ne moo général des Mourides nee ko dañ suñu kem kattan ngir uh, ren mbir moomule dootul amati te gis nañ jéego ne également def fête bi même bu fekkante ne am na côté boo xamante ne am na ndox tane na lool par rapport ak li nga xamante ne moo di daaw. tuddee màggal Touba bi nga xamante ne am nekk mhm. bii nii mhm, mhm. xam nga lépp bépp jafe-jafe boo xamante ne am na biir Touba porte parole mouridisme Serigne Bassirou Bass Abdou Khadre moom da koy tegal ki nga xamante ne moom mooy paas yi Serigne Bass Abdou Khadre yow ami euh, la plupart mi ngi nekk di di ki wax ki nga xamante ne moom mooy gouvernement bi ngir rek euh, waaw ñu jël si ay mesures waa xam naa loolu dinañ si wax waaye CRD bi nag loolu lépp dañuy nekk di ko si wax te ndox mi tamit dafa nekk loo xamante ni nañ koy waxee loo est indispensable à la léegi dañuy dafa nekk loo xamante ni luñ koy lijjantiwee dafa nekk lu gaaw wax naa la sànq bépp gan boo xamante ne da nekk nga fi rek ndoxu sachet moom leen lay utal wala ñu wutal la butéel ngir rek sa gan rek gën a nekk à l'aise ci fépp foo xamante ne rek nekk na ko. takk jóg ko ñu gis ne fi nga xamante ne euh, moo di Touba ñàkkum ndox mi nekk na mi moo xamante ne yàgg na fi waaye itam mën mi gis comme ni ma ko waxee léegi gis nga sax daaw cérémonie officielle amul ndax ndox mu bëri mi nga xamante ne amoon na biir Touba te li ci gën a garaaw mooy euh, ñi fi jot a jógee am na ay milliards yoo xamante ne injecté nañ ko ci nawet bi waaye terewul ba tey mbënd mi euh, dañuy gis ne mu ngi continuer di wéy naam sax gis nañ ne xaw na tane lool par rapport ak daaw. Euh, ñàkkum ndox mi moom dañ ciy sant waa dëkk ñi dëkk ci biir Touba ndax ñi ngi ciy góor góorlu di si def sa kemtulaay kàttan comme li ko soxna si waxe nii euh, am na ñoo xamante ni avant màggal un mois lañ pare ni gan ñi ñëw bu soobee yàlla dinañ sangu dinañ naan dinañ def lépp léegi nag état moo war a euh, wëlbatiku jàmmaarloog Touba nag jàmmaarloogu mat sëkk saafara ndox mi ndax nit ñi. macha allah ñi ngi wuyu si bari nan waaw kenn xamu nu wax dëgg yàlla te recette bi ruus bi ruus nan ci wax nag waaw <laughs> nan ci nan ci wax waaw ku ko dugalaat ci biir Touba. gëm naa problème ndox yi ñuy def nii du du fi am. day joué bu baax a baax waaw da ciy joué bu baax a baax a baax. ndax. bis la boo xam ne bu teroo rek réew mi yëpp xam ni teru na. Mhm. wax dëgg yàlla. Eh, a ci gis seen bopp. waaw wàllu mbënd met nag mhm. eh, ñi fi nekk nii ni président eh, Diomaye Faye mi ngi ciy góorgóorlu. Mhm. ndax man yaakaar noonu man plastique laa jënd bi may ñëw. ndax ni ma ko déggee woon waaw. ndax ni nga déggee woon affaire naan damay xuus nekk loolu amu fi. kon nan ci sant yàlla bu baax a baax ñoom ñu gën cee góorgóorlu nag mhm. ñu gën cee góor góorluwaat bu baax a baax xam ne mbooloo mooy wuyu si mhm. te wax dëgg yàlla sol sa mhm. jasineer ba mu kii di xuus nag ci ndox met nag wax dëgg yàlla nag nan ci nan ci waxtaanaat nan ci waxtaanaat bu baax a baax voilà di leen wax rek ngeen aimé partagé li nga xamante ne moo di live bi ñi nga xam ne jotaguñ seen notification ñu mën ko daal di jot ngir euh, ànd ak ñun ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ne ñu ngi koy amal fii ci Touba Mbacké nekk 130e édition magalu li nga xamante ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nekk magal koo xamante ne daanaka àdduna wërngal këpp ñoo koy daal di amal waaye nekk na moo xam ne àdduna wërngal këpp ku nekk fa nga jógee moo xam pays bu nga mënti nekk euh, murit xaadar laayeen ba ci sax ñi nga xamante ne ñoo di suñu ay mbokku chrétien dañuy bàyyi seen yitte ñëw fekk see li nga xamante ne euh, moo di euh, màggal gi ndax dimension euh, internationale bi nga xamante ne moom am na ko Cheikh sa Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñu maam jooju yàlla nañu ko yàlla fayal dañuy continuer rek li nga xamante ne moo di waxtaan bi wax ba tey ci li nga xamante ne moo di actualité waaye actualité boo xamante ne dafa ñel li nga xamante ne moo di màggal gi lee Euh, gis nañ ne ren euh, transport bu da daan métti bu baax a baax gis nañ ne bu màggal Tuuba amoon ñi nga xam te ne ñooy pèlerins yi du jóge région bu ñu ti nekk euh, problème bu ngand la ñu daan am ngir fekk si li nga xam ñëw fi nga xam te ne moo di Tuuba ndax chauffeur si dañ daan jël paas yi seeral ko cher goo xam te ne daanaka dafay jéggi dayoo ren gis nañ ki nga xamante ne moo di ministre du transport di El Malick Ndiaye ay dakaar dem dikk comme ni nga ko defee ci tabaski bi la daal di amal naam sax am na taxul sax mu mot parce que ku ne xam ne màggal Touba nit ñi fay am yaakaar naa ne dakaar dem dikk mënu koo matale waaye itam wa tax na ñenn ci li nga xam te ne ñoo di askan wi am nañ euh, satisfaction ba nga xamante ne am nañ ko parce que seeraayu euh, paas bi dañ koy dund li ni mel mel ni ba ren am na ñoo xam ne situation bi xaw na euh, tane tool lool lool ci ñoom par rapport geneen année yi nga xam te ne la ñu jógee jërëjëf euh, Amina. Mhm. xam nga léegi man nit ñi dama leen xàmmeetul parce que jaamu yàlla soo demee ba sa xaalis rek nga ciy jàmbat ki ci daan teg kanam lan la war a wax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Xaadim kañ lañ ko jëlee fii lan la daj pour réew mi jag fan lañ ko jaarale lan lañ ko xañ mention spéciale ministre des transport ñu koy félicité li tax ñu koy félicité mooy yàgg nañoo ñëw di màggal si gis nañu jéego yi te parce temps bi ñu toogee ak léegi lu bari xaju fi te xajal nañ fi loo xam ne nit mën na toog 50 te du ko fi def nit mën na toog 10 ans du ko fi def kon El Malick félicitation gënal góorgóorlu félicitation nag bu ñu la koy wax kenn taggu la dañuy yokk sas bi comme yéen ni ngeen koy waxee jub jubal jubbanti réew mi yéen boo leen defee li ngeen war a def kenn du leen gërëm mais félicitation dafa nekk loo xam ne baat bu gàtt la mais ku deful dara doo ko dégg parce que xoolee tey boo gisee Dakar dem dikk yi ni nga leen mobiliser ak ni nga ci def su la neexoon du la ci fekk parce que da ngay xam ne bénéfice bu bari amu ci mais bénéfice bi bu mag bi mooy li ngay defal Serigne Touba. yaa ngi dégg satisfaction bi nga xam xam nga tey ji satisfaction bi Sénégalais pour mu am ko mooy da ngay xam ni man màggal si naa Serigne Touba laa ñëw di ko santali yàlla ci ndamam li mu am. te ndam li du ndamul kenn lu dul ndamu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte xaadimu rasul. fépp fu yonent bi tegoon tànkam bi mu ko tegee teg na fa tànkam amul dara luñ ko mën a jam ci diine l'islam lépp loo wax ci moom lu rafet la Cheikh Amadou Bamba jaar-jaaram lépp lu rafet la kon El Malick ci wàllu transport bi ngay wax def na ci lu rafet gouvernement bi yëpp nag laa ciy gërëm parce que dama xam ne gis nga man tey li may wax ni yàlla rek a tax may wax waaw ñun moment bi ñuy jógee foofu di dugg fii su yëf yi suñ ko jooyantuwul woon non du demee nii kon da ngay xam ne tey sécurité bi ñëwee góor góorlu xam ne fi nga ko jàpp tey baax na bu ëllëgee boo yokkaatee yëf gën a baax yàlla na jàmm yàgg. loolu rek la. <laughs> voilà Fatou Kidé dégg nga ni ko may ba waxee transport bi nga xamante ne nekkoon na. problème mu majeur ñi nga xamante ne ñoo di pèlerins yi jugee gox-goxaan yu fasantikoo yi di ñëw fi nga xamante ne moo di ci Touba Mbacké parce que yu paas yi nekkoon na loo xamante ne jafe woon na waaye itam kall kale nga xamante ne chauffeur si dañ la ko doon kall boo demoon ay boo maraîcher li ni mel wala sax ñi nga xamante ne ñoo di ay Colobane bi dañ ko faral di jëlee ay oto jafe-jafe yu tar lañ fa doon faral di am ñoom ñi nga xamante ne ñoo di pèlerin yi ren gis nañ ne bu fekkante ne sax satisfaction totale amu ci am na benn pàcc boo xamante ne ñoom ñi nga xamante ne ñoo di nguur gi joué nañ ko ci li nga xamante ne moo di transport bi euh, sànq ami maa ngi la doon euh, wax naan la CRD bi euh, ki nga xamante ne moom mooy suñu porte parole bi daa daal état établir rapport transport bi Euh, jox ko ki nga xamante ni moom mooy directeur Dakar dem dikk bi wante da koo ne na sa xol sedd lépp loo xamante ni rek euh, dinañu euh, dina mat rek lépp loo xamante ni rek kii na dem na si wàllu màggal gi rek dinañ ko matale wante ami transport yi ku nekk daan na dégg muy dem ay vingt-cinq mille ay trente mille lu nu mel waaw ñoom ñuy exagéré ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu màggal gi mhm. donte sax murid yi sax lu nekk jaral na leen ko sëñ Touba moom ñu ñëw ci dëkkam bi moom lu nekk jaral na leen ko mhm. mais ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy chauffeur yi dañ doon exagéré si prix yi nga xamante ne moom lañ doon joxe mhm. ñu ne déetawaay ñu jëm ñu ñu jël euh, dem dikki daal di koy joxe ñiy jugee Kébé ñiy jaar Kébé si suuf ñuy jaar ci péage bi ku nekk jaar fu nekk yaa ngi wax sànq boo maraîcher ku nekk dem euh, dem foofu daal di dem wuti oto pour ñëw rek daal di dem wante ami tali bi daal dinay nekk loo xamante ni doy na waar tali bi yaatu na euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu kaaraange gi taxaw fële si cat ba xam nga la moo tax embouteillage yi daal di metti noonu man de dimanche laa lay wax ñëwaguma si mercredi ñëwatuma ñëwaguma si jeudi dimanche lundi mardi tali bi xat ba moom ba mu mel ni tulleeg maali bu ko kenn tudd kenn amul foo jaar bu ñu demee ba sa cet ba gis benn gis ay policiers taxaw foofu noonu di xaar nit ñi di leen aar ñu ñëw jubal si Touba ku ko waral xaadim rasul ah loolu tamit na nekkul loo xamante ne dañ koy laam-laamee de nekkul loo xamante ni tamit nag dañ ko war di ko xool di ko dut baaraam dafa nekk loo xamante ni dañ ko war a leeral ndax ñoom ñëpp jug kii moo leen xaadim rasul moom moo leen ko moom moo jaral kon mu nekk loo xamante ne euh, lu macha allah c'est à c'est à euh, nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum transport bi El Malick Ndiaye ñoo ngi koy gërëm bu baax a baax parce que euh, wàllum transport def na ci loo xamante ni lu am solo la parce que ami tabaski bi daf ko defoon mu neex ñu ne ko boo ko dolliwaatee mu gën koo neex waaw moo tax daal ñu daal daal di koy jëlaat ndax paas yi metti woon na si ñun man bu fekkee ami da am 10 man oo ma 10 000 2500 laa am laa am. waaw voilà ñu war a dem euh, tabaski waaw xam nga waaw ak ñi nga xamante ni tamit nañu jugee jugee Ziguinchor waaw ñooñu aussi ñoo ngi leen wax massa coono mhm. parce que fu ñu dafa dafa sori mhm. euh, kenn mhm. bu ñëwee daal di wàññi li nga xamante ne moom mooy paas yi dañ ko ciy a a a baax allah voilà macha allah ni ko waxee noonu la soxna ki ne ndax gis nañ ne également même bu fekkante satisfaction totale amu sax mais bu fekkante ne wala ñetti sax ñoo ci gis seen bopp dafay nekk ay mbir yoo xamante ne euh, dañ koy daal di saluer parce que ñoom ñi nga xam ne ñoo di suñu mbokk murit ñoom Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaral na leen lu ne boo leen fayekoon pas cent sax dañ koy daal di tegoo waaye nag mbir mi dafay métti ci ñoom lool parce que bu fekkante ne da nga war a paas paasal sa euh, doom paasal ñeneen ak ñeneen yaakaar naa ne di métti te euh, am na charge yoo xam te ne mi ngi lay xaar ci biir màggal gi également takk jóg yaakaar naa ne bu ministre bi defee loolu am na mbir yoo xam te ne war nañ ko rafetlu bu baax a baax Mhm. jërëjëf ministre bi. jërëjëf eh, def na lu rafet bu ko neexoon mën na ko bañ a def te kenn du ko ci wax dara kon bu ñëwee def ko danga koy sant bu baax di ko gërëm xam ni nag lebal na ku mat a lebal lebal na ku mën a fay bor nan dem ren ba déwén ñu xool ba xam lii mu def nan la koy dikkee El Malick Ndiaye nattal sa bopp ren jëm déwén nga xool dinga yokk di nga ko yëg bu baax a baax a baax. barke sëñ Touba. waaw ndax euh, soxna Amina. am na ñoo xamante màggal gi noonu lañ ciy duggee. wallaay gis naa waajoo xam ne ci garage bi la toog bu waxaalee emprunté bi ba mu kii bu bu différence 1000 francs mun ko kaay dugg. moom mottali la. nga xam ni jaa ñi jaamu yàlla ñi ngi jaamu yàlla ak façon yi liggéey ni koy liggéey ci biir waaw mhm. ni koy jaayantee. waaw waaye El daal ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci at bi mu def wax dëgg yàlla mm-hmm. kontaan nañ ci trop murit yi kontaan nañ ci mm-hmm. jullit yi kontaan na ci événement yi ñëwaat ci kanam na ko dàbbali rek yokk cere doolu ñeex loolu loolu la nga ko sant. voilà macha allah kon duñu wax nag ci transport yaakaar naa te duñu wax ci li nga xamante ne moo di lakk si accident yeeg lu ni mel parce que gis nañ à chaque fois bu màggal amee accident yi dafay bëri waaye itam nit yi ñàkk seen bakkan dañ ciy daal di bëri te yaakaar naa kenn ñaanul ne yaa ngi dem màggal Tuuba nga tourné ne dit kii kat dem na waaye dellu si waatul donc di ñaaxaat ñi nga xamante ne ñoo di euh, chauffeur si ñu amaat yar ci kaw bi waaye itam amaat prudence ñi nga xam ne également ñoo di takk der ñu surveiller bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo di policier parce que dañuy gis ne takk der yi ñu ba euh, surveiller bu baax ñi nga xamante ne ñoo di euh, chauffeur si parce que dañuy gis parfois may ba koo xamante ne nii dafay profité bëgg a def Dakar Touba. benn trois fois wala benn quatre fois te benn nit moo koy def dafay am coono boo xamante ne du ko mën a supporter da ngay gis sax chauffeur boo xamante ne day dawal di nelaw et je pense que yooyu war nañ cee jël ay matukaay bu baax a baax parce que accident yu bëri mën naa ne excès de vitesse moo ko indi waaye itam am na ci yoo xam ne ñàkk yoru chauffeur si nañ ko wax te dee moo ko indi donc ñu bàyyi xel euh, ci mbir yooyu bu baax a baax euh, am na oto yoo xam ne am na ci yoo xam ne sax ñoom dañ gis oto boo xam ne daanaka dawatul woon màggal gi jub si na ñu ne xaaral pour xaalis ñu fexe euh, dabb daaxi oto bi daal di koy jël teg ko ci li nga xamante ne moo di tali bi moo tax dama ne am na ci loo xamante ne pas de responsabilité kenn lañ koy joxoñ mu ñi nga xamante ne ñooy taxaw ci tali bi takk der yi nañuy ànd ak prudence bu baax a baax ngir éviter li nga xamante ne moo di accident yi maay ba jërëjëf euh, Amina mhm. yaa ngi laaj laaj yu am solo di développé lu am solo yal na yàlla gën la dolli sutura ci barke Cheikh Amadou Bamba Xaadimul Xaadim borom màggal gi euh, soo xoolee laaj bi day dellusiwaat rek ci liñ doon gërëm sànq ak di sant tey boo xoolee bi ñu boo ñëw ci yoon bi da ngay gërëm le ministre des forces armées gërëm aussi tamit le ministre de l' intérieur El Malick tamit day ñëwaat foofu encore parce que ñoom def nañ benn bloc fexe ba yu bëri ñu ñu ñu éviter ko yu bëri yu daan am problème tey ji soo xoolee wàññeeku na parce que l' accident yi daan na gën a métti mais yàlla bu mu am su fekkee am na yu ndaw ndawaan yu ñu romb donte accident du ndaw bu ñu sañoon zéro accident lay am parce que doomu aadama doomu aadama kese la nit mais su fekkente ne comme li nga wax laaj sànq benn nit bu bëgg a dem Touba Dakar bugg ko def cinq fois te moom kese mooy dem loolu yanuwul maanaam mais tey takk der bi nekk ci kaw tali bi xàmme na oto bi mais mënul xam ne chauffeur bi moo dem cinq fois six fois ñëw mais boo gisee li ñuy def ci autoroute à péage bi ak def ko ci kaw tali bi façon barrage boobu ñu boobu ñu def nga xam ne boo nelawee dinga dal ci barage bi stratégie boobu stratégie bu baax la parce que wàññi na l' yi wàññi na yenn problème yi kon nag euh, Amina gars yi ay jàmbaar lañu. te ñu ngi góor góorgóorlu ci réew mi ñu ngi góorgóorlu tamit yi doon yàqu ñi ngi fexe di ko ñab ñabal ñab ñabal boo xam ne ñab ñabal bu mucc ayib la te bu jëmee kanam accident dootul amati incha allah partout au Sénégal bëgg màggal zéro accident sax la ñu daal di bëgg même bu dul màggal sax accident waratul am accident ci li nga xamante ne a dàq eh, eh, eh, li ma gën a mooy ñun dañu bëgg a def léegi accident loo xamante ne lu naturel la que xamante ne ñoo di dëkk Europe yi peut-être accident dina fa am mais ni muy ni muy ni muy bëree fii doo ko fi gis. waaw xam nga tey jii chauffeur buy dawal. Mhm. mu leer ko ni oto amul frein. moom man dugg naa ci oto. oto bi daw lu yàgg mais sama frein baaxul. yaa ngi dégg kay teel ma frein bi. wala nga taxaw ne kaay kalal ma sama oto bi. wallaay loolu la ñuy def de. utal xeer nga kalal ma sama oto bi. Mhm. mais kooku tey bu accident amee est-ce que dañuy wax ne yàlla moo ko dogal. non yàlla dogalu ko. ndogalu nit a ngi ci. yaa ngi dégg. mënoo mhm. fekk par exemple tey loo xam ne dafa war a ñëw indi ay pèlerin nga ñëw yàpp ci nit plus de quatre quarante personnes plus de quatre vingt personnes nga jël ay surcharge teg ci. ak surcharge am euh, nga ni euh, kenn gaañ ci nga ni. Mhm. yàlla mooy dogal lépp mais am na ci yoo xam ne du dogal yàlla dogalu nit ki la. exactement tamit man gis mhm. naa ministre forces na ci. Mhm. de l' intérieur na ci. El Malick it jóg na ci ñett doomu pendenaar yi jàpp leen foofu rek. virage fa rek. ba noo def mu rubee mënu luñ ko leen may ba moom mi ngi nii. ñett doomu pendenaar yi. li fi ñu le ministre de l' intérieur El Malick fi ngeen ko jàpp ci màggal gi baax na delawaat la fa sa loxo. Sénégal zéro accident la bëgg waxuñu sax lu dul màggal. mais bépp événement boo xam te ne événement religieux la même bu dul événement religieux sax. dafa jot ñu euh, accident dakk ci li nga xamante ne moo di réew dañu nemmeeku fan ni accident yi bëri na trop surtout semaine bi nga xamante ne la ñu weesu ñu ci bëri ñàkk ci seen bakkan donc dañuy ñaaxaar rek chauffeur si encore une fois parce que pour man responsabilité bu yaatu bi ñoom ñoo ko am parce que ñoom ñoo yor li nga xamante ne moo di yi te yaakaar naa xar sax boo ko yebee am na bakkan waxatuma laak nit ak noppam boo koy ba nga am responsabilité ba nga xamante ne daal waroo dugg ci yenn yi amina mhm. gis nga bu njëkk mhm. accident balaa autorité bi di fa taxaw sax da ngay yéemu tey accident am na accident yoo xam ne soo amee ci biir région yi balaa une heure nga gis ministre bi ñëw taxaw mu leeral ni ñëw ñii dañuy suivre dëkk bi benn par benn seconde par seconde gars yi xoolal marquage à la parce que ay xale lañ duñ gëmmantu nekk ñu fi di naan jus di taal clim di naan je te dans deux semaines ñoom dañuy jug léegi léegi jooni jooni laa leen tuddee yàlla na yàlla defal leen jàmm macha allah parce que jomaay da leen a yónni yàkkamti leen réew mi it yàkkamti leen yónni leen yàlla na jàmm yàgg ba nga laaj ma leen yàlla jàmm yàgg ba ma laaj leen yéen nga xam ne suñu ay mbokk internet aimé leen ngeen partagé li nga xamante ne moo di live bi partagé leen bu baax a baax di li nga xamante ne jotaguñ seen notification ngir deuxième euh, édition bi euh, Fatou Kiné comme ni ma ko laajee may bi laa la koy laajee kenn du wax transport te waxul ci li nga xamante ne moo di mbirum l'accident yi nga xamante ne faral ne dafay bëri lool lool lool ci li nga xamante ne moo di période màggal bi ndax euh, yaakaar naa ne bëgg na ñi nga xamante ne ñoo di pèlerins yi ñu dem ci jàmm ñibba ci si jàmm ba kenn ku nekk ñoom waxuma la sax accident waaye dara du la xoos. waaw ami xam nga yéenekaay bi dafa bindoon rek lu yàggul dara repos obligatoire pour les chauffeurs mu nekk loo xamante ne aussi dañ cee war a bàyyi xel chauffeurs yi nañu dimbali rek ngir yàlla nañ reposé wu maa bi rek mi ngi wax sànq ki nga xamante ne moom moo dawal léegi policier bi wóoru ko ba xam moom moo dawal moom moo moom moo moom mooy dawalaat nii dañuy mun na am mu nekk moom mun na am aussi mu bañ a nekk moom ami man gis naa koo xamante ni dafa ne yéen ñii su ma leen wàcceewee damay damay delluwaat ñun ñu taxawoon foofu ne ko waaye yow xanaa doo noppalu mu ne déedéet du noppalu moom day dem ak ñëw di dem ak ñëw léegi loolu pour lan la te loolu guddi mun na ci am bëccëg tamit mën na ci am di nga gëmmintu lépp xaj na fi kaw tali bi nit nit rek nga mën a doon mm-hmm. mu am loo xamante ni tamit euh, maay bi sànq mu ngi koy bantu bépp euh, booy dem euh, Touba xam nga am yaa ngi gis la plupart maa ngi koy wax sànq tak kii yi nu mu nu mu feesee tali nu mu feesee xam nga la moo ko waral nee naa dafay am benn dire benn direction boo xamante ni ñoom foofu la ñuy jàll police gendarme yi dañuy baare beneen côté bi léegi ku ñëw rek da ngay da ngay jàll benn benn benn partie bi loolu moo waral a loolu moo waral péage bi muy xat léegi yow bu fekkee da nga dépassé partie boobu noonu boo demee da ngay gis tali bi nu muy nu muy yaatuwee nu muy yaatuwee mais am xam nga la ngay wax da ngay wax kon nii lii moo tax ñu doon wàññi ñu doon ñu doon baare fii parce que dañu doon diminuer li nga xamante ne moom mooy accident ndaxte bu fekkee baarawuñ foo gis nga chauffeur yi nu leen neex la ñuy dawalee xooluñu fii laay jaar xooluñu fële laay jaar dangay gis koo xamante ne ami man mii toog damaa ragal oto trop euh, su ma duggee ci oto bi su ma tëddee jékki saay di nelaw su ma gisee oto bi dafay duble oto bu nekk ci karamam xam nga lan laay xalaat ba xam camion nekkul ci ginnaawam loolu su ma ko xalaat rek du ma tiitee rek damay yeew damay tiit. man damay tëdd ci oto mel ni ku man damay tiit non ami man dama tiit man su ma gisee lool parce que ami gis nga man euh, ba ma doon ñëw man accident yi nga xamante ni romb naa ko maa bi de xam nga accident yi bëriwul ren nag dëgg la nag moom mhm. bëriwul ren mais am na ay benn benn am na ay benn benn yi ma romb maa bi mhm. yooyu noonu ay camion la ñooy laal ay minicar comme accident yi nga xamante ne ñoom ñoo fi aw rek mu nekk loo xamante ne lu metti la xam nga ami la plupart dañuy wax camions yi dañ leen war a arrêté pour ñuy daw ci kaw waaw wala ñu jox leen wax la ñu jox leen sax heure accident yu bëri à chaque am camion camion la mhm. gis nga ami Saint-Louis am ci kaw pont bi euh, camions yi dañ leen tere ngir ñu jàll ci kaw pont bi laaj ma lu tax parce que dañuy yàq tali yi loolu moo waral ñu leen di tere ngir rek ñu jaar si kaw si kaw pont bi mhm. camion si jëm boppam dafa war a am heure boo xamante ni moom la ñuy jaar mhm. ñoom tamit chauffeur camion yi tamit nañu discipliné tuuti. ñu xam ni lii nga xamante ne moom mooy tali bi nekkul foowukaay. bakkan dafa foor ko bokk ak seen i ay nawle waaw dañ ko bokk ak seen i nawle. Mhm. bakkan dafa nekk li nga xamante ni dafa dafa foor. Mhm. te ku nekk rek war ngaa sóoraale sa morom mi nga xamante ni moom nga bokkal tali bi ndax ñoom ñëpp rek comme ni ma ko daal di waxee saa su ne rek ay mhm. copain lañu dañoo bokk fi nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee mu nekk ci kaw tali bi. faral di wax naan sax tali bi xatul xol yi ñoo xat voilà ndaxte ami boo yoree da ngay gis koo xamante ni dafa fois nit dafay ñëw mu ne pour mu may ko mu jàll genre yooyu da koy may mu jàll nii gentiment te dara dara du xew mais am na ñoo xamante ne ami du ñu may kenn te loolu aussi dañ ko war a nekk lu koy xoolaat même bu fekkee Maibra ki nga xamante ne euh, moom mooy euh, El Malick dafa dafa dafa def si wàllum transport bi lu bëree bëri bari bëri bëri te ñun ñii nga te ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw tali bi nekk chauffeur yi lijjanti Euh, seen xol yi comme ni nga ko waxee léegi ami affaire bi foog naa ni du foog naa ni du dem du sotti uh-huh. ami aussi borom bu tey tamit nga may ma foofu parce que man à chaque fois loolu dafa may nekk loo xamante ne dafa may inquiété borom bu tey nañ xam bu baax li nga xamante ne moom la ñuy moom la ñuy def ndax jóge dakaar di ñëw Touba nga yor moto loolu tamit nag dañ koo war a xoolaat waaw convoi la lañuy def loolu dafa ëpp loolu dafa ëpp xam na xam nga ami ma joxaat la rek beneen anecdote am na année boo xamante ne ñun ñii suñu quartier boobu ñu dëkk rek dafa am ñoo xamante ne ñoom convoi lañ daan def jóge dakaar ñëw ba fii Touba dem suba la màggal am at boo xamante ne am kenn koo xamante ne yàlla dogal mu daal di fi ñàkk bakkanam depuis loolu nag la ñu gëj a def li nga xamante ne mooy convoi yàlla na ko yàlla rëy yaram kon boog nañu xool ci ñooñu yi nga xamante ni euh, loolu dafa metti ami nga daal di jóge Dakar ba Touba def sa benn mboto dong daal di ñëw loolu dafa metti ndax man euh, ni ma toogee ni awa euh, ami gis naa fi ñaari mboto yoo xamante ne def nañu accident kenn ki daal na fi ñàkk bakkanam boobu policier fi ka fay kooku bañ ba muy romb nit ñi policiers yi anañu ku loolu tamit tamit ami waroon na nekk loo xamante ne war ci bàyyi xel ñoom tamit xam naa ni ñu ngi koy bàyyi xel bu baax mais xam nga mbëtee dafa doy dafa doy waar fiw fiw lay mhm. mhm. mhm. daal affaire bi daal moom dina dina sax dañ fi nag ndax wala comme ni ko maay bu waxee mu mm-hmm. dañ fii bu soobee yàlla moo ñu gënal daal voilà takk jub ni ma ko laajee euh, suñu naataango laa la koy laajee gis nañ ne bu accident bu màggal gi euh, jubee accident yi dafay bëri lool waaye itam euh, lox naa ko léegi responsabilité bi pour man lu ci bëri ñi nga xamante ne ñoo di chauffeur si la parce que ñoom ñooy yor volant ñooy dawal waaye itam même client yi sax am nañ ci part de responsabilité parce que boo gisee ne oto bi surchargé na war nga boole ki nga xamante moo di policier de ko kii kat yëpp na nombre boo xamante ne waru ko yëpp pour man pour euh, bu ñu fa bëggee jële accident pour yow naka lañu war a taxawee. xanaa jële fi oto yu màggat yi oto yu màggat yi. 1960 ba léegi oto di mhm. daw. naan xororororororororor waaw mënoo doublé oto oto mënu laa doublé bu la oto bëggee duble nga koñe ko bañ mu jàll kooku ñuy wax Njaga Njaay dafa war a jóge yàgg na trop ci dëkk bi boobu ñuy wax ci plateau yi kenn judduwul xamay nag car rapide waaw yooyu dañ war a jóge Euh, premier euh, ministre euh, président ubbi yoon bi indi oto yu bees tàq ci dëkk bi jox leen ko wala ñu waaw jox leen ko ah. ñuy dawaat ci dëkk bi boo waxee nit li lii na fi jóge day def lii merci loolu daal moom bu fi li fee mi jógewu fi mbir mi neexut a saafara ndax am na ñoo xamante ne bu ñu demee service mille mun mënuñoo am sax papier du am na si yoo seen oto du dem dañuy wut mm, kii ci ginnaaw rek lijjanti fexe ba oto bi dem te Amina patron yi oto yi chauffeur yi dañ leen di ŋaañ lu lu ci bari patron oto yi la benn Ndiaga Ndiaye nga jox ko chauffeur ni ko bëgg naa ci 3 millions ci màggal bi xam nga boo bëggee liggéey da nga ciy jaayante rek waaw waaw bu ko defee moo tax doo nelaw doo onk doo def dara. yaa wax lu am solo nag. Euh, takk parce que bu fekkante ne moom chauffeur la tey jii te moomul oto. Mm-hmm. Euh, par exemple ki moom oto bi bu ko laajee benn 200000 moom di mooy moom dina fexe daw benn 300000 boo xam te ne 100000 ci poche la jël également li nga wax c'est c'est très important. Mm-hmm. kon looloo tax na ñu war cee taxaw seetlu bu baax a baax a baax mm-hmm. safari ñu ci bari dañ leen ni ŋaaññi waaye def ñu def ñu dara dëgg la am njaga njaay boo ci màggal gi jeexee boo ci amee deux cent mille doy na sëkk mm-hmm. yoo xam ne dara wër essence bi wër la dara wër la doy mm-hmm. mais njaga njaay nga bëgg koo laaj deux millions wala un million nangam loolu dafa jaaruwul loolu rafetul tan génne oto yi màggati dëkk bi sànni ko ci àll ba indi oto yu bees jox leen ko ñu ñu dawal ko waaw mooy dëgg daal tali bi daal man loolu laa ci xam <laughs> te pneu yi ko amina pneu yi jeex na am na oto yoo xam ne pneu yi dafa raase ba jeex takk amatul benn rëdd train dara la amatul loolu mooy ini indi musiba ci dëkk benn rëdd dara la ci amut. na mën eh, kon kon na pënee na pënee di am ñaar ñu liis bu ñu dajale ñu def ratax ba ndànk. wallaay ah loolu kenn mënu ko. booy frein du jàpp day glissé daal di dem. moom mënoo am mënoo ko amal ay frein. dëgg la booy frein muy dérapé dem yoonam. Mhm. moo tax ngay frein doo fa fekk dara. Mhm. nan changé pneu yi màggatee oto yi màggati sànni ko ca àll ba. waaye ndaw ñiima ma gis ci réew mi mhm. di leen soppi lépp maay ba benn. incha allahu rabbi Euh, voilà di leen wax nag yéen ñi nga xamante ne ni safoo ànd ak programme yu 2A TV rawatina seen émission bi nga xamante ne moo di le soir di émission bi nga xamante ne yéen ko tàmm tey nag nee naa leen le soir spécial la fi nga xamante ne moo di ci Touba Mbacké tey nekk 17 euh, safar euh, ñu war a amal li nga xamante ne moo di màggal gi suba incha allah waral ñu ñëw fii teewee ko ak yéen yéen ñi nga xam ne ni suñu ay mbokku internet lépp loo xam ne rek événement bu mag la doo leen ko tardé benn yoon dañ leen koy toppal waaye itam dañ leen koy suivre lépp loo xam am na ci ngeen mën ko am en direct ànd ci ànd ci ak ñun ñi nga xam te ne euh, yéen nañu euh, safoo di ñu topp saa su ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci live bi maa ngi leen di ziara di leen sant di leen gërëma ah, di leen jaajëfal bu baax a baax euh, ku ci mel ni aji ji si Modou Ngom Jama Mbay Fatou Tunkara ma sœur bu li jiite voilà ak euh, Cikito ñu ngi lay jaajëfal bu baax Basirou euh, Fall. ban Cikito la. Ah, Cikito de la bind. Cikito Prod ah kooku seen seen waa ASC. E. yéen a bokk ASC. E. moom lañ dugaloon tànk bi ma ma ne bu baax a baax <laughs> Fatou Kiné Mbaye Serigne Babacar ah voilà ak mbay Seye euh, Babacar aussi ñu ngi koy jaajëfal Fatou mbay sey waa Sandaga. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. ak Moustapha Thiam Abdou Diallo ak képp koo xam ne jamono ji yaa ngi jàkkaarloog seen émission bi la moo di le soir di fi taataane li nga xamante ne moo di xibaar dañuy daal di woyale li nga xamante ne moo di waxtaan bi beneen jafe-jafe bi nga xamante ne itam Touba mu ngi koy dund bokk na ci li nga xamante ne moo di mbirum courant bi euh, may ba daanaka ba ñu ñëwee euh, ci kanam tuuti rek gis nañ ne courant dafa daal di coupé ay euh, mën nañ à peu près 30 minutes la doog ñëwaat nekk mbir moo xam te itam dañ koy dund e pour man loolu mën nañ ko comprendre également parce que daanaka dal yi neex na dal boo dugg climatiseur lañ lay daal di taalal donc peut-être euh, courant bi attanul li nga xamante ne euh, moo di euh, nit ñi fi nekk waaye itam nañuy utiliser courant bi xëy na moo tax véritablement coupure bi di amali mais pour man war nañu jëlaat yokkoot li nga xam ne moo di matukaay ndaxte Touba xam nañ ne euh, askan bi nga xamante ne ñoo fi nekk waaye itam dayoo nit bi nga xamante ne moo fi nekk ñu góor góorgóorluwaat bu baax a baax ci mbir moomule ndax yaakaar naa ci période tàngaay la ñu nekk waaye ci période nawet la ñu nekk également bu ñu boo bëggee boole màggal ak coupure dina métti lool may ba. jërëjëf euh, soxna Amina ñëwaat nga ci point bu am solo mais coupure bi moom daanaka xuy la def rek kamaj daa coupé rek dellusiwaat du ñàkk ni technicien yi kenn solo ci fil bi. gars yi indiwaat ko loolu moom vraiment du coupure dara waaw parce que c'est pas méchant xam nga xam nga xam nga gars yi par exemple euh, réew mu mel nii xam nga xam no xam naa ne dafa am technicien est-ce que du Mansour wala bi tey comme bi tey dafa bëgg fiil dama ragal ne moo ànd ak takk jóg di ko sauver di ko jox carte par am far faka salu parce que da courant bi dafa coupé rek dellu siwaat loolu it aussi vraiment ñu ciy félicité bu baax directeur Senelec di ko wax ne ko dañ lay gën a ñaaxaat rek di la wax ne la événement yu toll nii fenn warul am problème donte nag assuré nañ ko. pour ah. moment assuré nañ ko ba heure bi gisaguñu benn jafe-jafe. te yàlla bu jafe-jafe am. Mm-hmm. parce que soo xoolee bu màggal masaan toll fii. Mm-hmm. dangay ngay gis euh, dëkk ñi gën a xaw a sori jumaa ji tuuti. Mm-hmm. ñoom dañ koy def genre exprès. ci nguur gu njëkk ga nag nguuru alxam léegi <laughs> dañuy coupé fii coupé fee coupé fële ñap fee jël lépp dajale ci jumaa ji pour gars yi bañ a am filtration yaa ngi dégg léegi nag jomaay nee na gars yi dem leen ci ruq-ruqaay yi naan coupé ngeen montel ma fa taxaw fa. fi ñu toll li gars yi nga fi dañoo coupé taxaw non bien sûr bu xam nga état nguur gi dafa nekk nguur boo xam dañuy surveiller hmm. réew mi dañuy topp réew mi hmm. lan moo waral loo def léegi léegi xale yi tontu la léegi léegi hmm. sa réew mi dañ koy bu njëkk kenn daawul surveiller réew mi réew mi dañ koy surveiller non bien sûr parce que tey coupure bi man fii la ma fekk mais dafa ne xuy kamañ ma xam ne fakastalu la ba pare may ba léegi am nañ satellite non lépp la na am yaa ngi dégg gisoo euh, euh, drone yi naaw na dërëm yaa ngi naaw. non mais mais dëkk bi pour mu pour mu pour mu jag. il fallait que président yu mel ni am fi. dëgg la il faut njiitu euh, njiitu gouvernement yu mel ni am fi il faut ministre yu mel ni am fi dafa am ñoo xam ne sañ ñoo sañ ñoo def leneen. parce que ni mu demee la réew mi duñ muñal kenn. ñi leen fal faluñu leen parce que ñoom dañoo rafet faluñu leen parce que dañoo mën a takk cravate faluñu leen parce que dañoo dëggu déedéet dañ leen a fal parce que xam nañ ni ñun ak ñoom ñoo bokk li ñuy xeex tey jii am na ñoo xam ne dañuy woote dañoo dëggu ba falu def leneen mais tey ku mel ni tey nguur gi ñu gis nii li ñu gis dal na suñu xel tey am nañ yaakaar ne duñu tax suñu yaakaar parce que réew mi su neexee si ñëpp lay neex coupure courant bi nag directeur dama lay wax ne la benn fakastalu la woon euh, bi tey moo moo doon jàll fakastalu ji fiil bi mais kuy la def rek dafa kam waa Touba yëpp kontaan nañ xam nañ ne coupure ni mu daan mel fii wax dëgg yàlla gisatuñ ci coupure bi xaw baax xam nga tax baax mën que nit nekk également bi ndakaaru sax des fois mu tuuti amaat parce que dañ fee fekk loo xam ne lii baax na lii baaxul lii baaxul pour nga defar ko mënoo jékki-jékki léegi-léegi defar ko mais nag yëf yi tane na te biñu fi toogee yàggul bu ñu fi toogaatee lu toll ak un an yëf yi gën a baax màggal gii di ñëw mais da ngay gis gars yi naan fu amul courant ku soxla fiil yaa ngi dégg yàlla na jàmm yàgg. waaw dana gën a baax dana gën a neex. Ah, kenn du jama yi. président fi nga ko teg baax na. kenn du Cheikh Ahmadou Bamba sa loxo kenn du Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul. ndax ndax rafet juma ndax ndax lii yëpp moom la. neexi soos neexi soos. kenn du moom. waaw tey de li ma fi gis samay mbokk Tijaan. waaw maa ngi ay Bamba baa ngi nii toog. Euh, ak ak kii <laughs> non Matar Ndiaye. Ah. nee na ma xool a gëlëm gi ni mu toll. <laughs> yàlla na jàmm yàgg doxalal moom itam ci ci ci jaanu Bambey la bokk te dafa mel ni nag euh, may ba macha allah xam nga man taalibe sëñ Habib laa sëñ Habib Gueye mu xaddam sëñ Mansour mais tey ñëpp xam nañ ni Touba dama fee am dara ndax sëñ Mountakha bi may ñaanal ci Zahir nekkagul xalif général des Mourides wallahi kër gi nekk fii la ma ñaanal kër mag moom yàlla na yàlla yokk ko wér yàlla guddal fanam loo dund doyul Mbàkke yow sa sa dund njëriñ kese la borom mbégte ku la wax dëgg yàlla ñi nga xam te ne ñoo di euh, euh, tijaanu Bambey sant nañ murid yi bu baax a baax parce que gis nañ ne ba ñu ñëwee ba léegi bernde yi bëri na ah mu ne nii nag man xam nga nag damay bañ bàyyi nii suñu maak turé turé yeeg ñi sant loo waaye ragal naa balaa may ñibbi benn dama fiy toog ba xaar ba benn jeex tàkk tàkk tàkk ma doog a ñibbi. gis naa fi nag yu amul bàkkaar takk takk jóg gis naa fi xar yoo xam ne amul bàkkaar. waaw loolu gis ganaar yu amul bàkkaar. loolu day am gis pitax amul bàkkaar yu rek. gis naa fi tamit ay jus xam ne amuñu bàkkaar dañ leen a dañ leen a defar rek indi leen indi leen waaw ñoom jotuñu fee yàq ay place jàmm rek daanu ci mbedd bi ñu naan gaañ na ma oh kenn amu ci bàkkaar yàlla na jàmm yàgg te lépp oh. te lépp kenn te lépp kenn rek ko waral muy Cheikh Badou Bamba Khadim Rassoul yàlla nañu ko yàlla fayal rafet waaw à tout moment nag euh, nu mu tuddati taalibe Cheikh Bamba bi mën naa mën naa mën naa mën naa nekk murit. non xam nga xam nga. xam xam nga tey à tout moment joma joma ji mën na maa mën na maa kii daal. non yow moom yow yow ñibbisi sama sama xol bi de sama en tout sama xol bi sedd na. dëgg la ndax euh, takk. Mhm. valise bi mu yor. waaw moo lay woon ne jëlagul décision dem. pour ñibbeegul balaa moo dem fekk gars yi supp li ci des. waaw <laughs> te bu ñu màggalee ba suba sa dañuy dooma daa. waaw. foog ma xaar dama laaj rek naa yendu fii. faaw ma xaar dama daaji ren. ma xaar ko ren en tout cas macha allah lépp jaar na voilà la jaarul yoon incha allah ñu ngi ci. ngom bu Serigne Sall ñu ngi koy jaajëfal bu baax ak Moustapha Thiam depuis États-Unis Abou Diallo également ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax na ngeen partagé aimé li nga xamante ne moo di live bi pour ñi nga xam ne jotaguñ seen notification ñu mën ko daal di jot utile à l'agréable la ñuy daal di wax parce que ku ne màggal wax mbégte kon donc ñoom ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan dañu war a sentir mbégte bi nga xamante ne ñun am nañ ko ci biir Touba am na ñoo xamante ji nekkuñu Touba ñun ñoo leen fi nekkal dañoo war a xam ne ñun instant bi ñun ci mbégte moo tax parfois maay ba ngi ciy dugal nii da ci baax mënul ñàkk waaw borom États-Unis mi ngi anticiper di xam ne moom mi ngi ci biir màggal gi waaw waaw waaw parce que déjà li ñuy def lu am importance mhm. tey boo xoolee temps bi ngeen def ci Touba ak yeneen télévision yëpp ñu leen di nuyu au passage mhm. liggéey rafet na foo tapé rek gis 2A TV la chaîne du peuple ñëw def loo xam ni lépp ngir liggéey sëñ Touba bi la tey bu ñu toogee fii di wax te gestu wuñu bal bu tàkk ah Cheikh ma Bamba moom la lépp moom la ndax man bu bal tàkkoon ah sa dëgg dëgg maa nga noota jawaas toog wala mal la man non xam nga fii dafa bari jàmm mhm. te Cheikh Ahmadou Bamba jëriñ kese la moo tax soo ba léegi ndekkeegu ma sax daam lu may xaar li nga fi def yëpp wax nañ ma ko Jabel Yacine XYZ Mbaye euh, Seye ñu leen di jaajëfal bu baax a baax am leen ngeen partagé li nga xam ne euh, moo di live bi Fatou Kiné comme ni ma ko ah, mbirum courant bi la ñuy daal di wax waaw comme comme ni ma ko laajee ba gis ma maay ba nañ ne euh, courant bi également am na quelques jafe yoo xamante ne nemmeeku nañ ko ci yaakaar naa ne mën nañ ko comprendre d'autant plus que nit ñi nga xamante ne ñoo fi nekk waaye nemmeeku nañ ne également changement am na par rapport ak année yi nga xamante ne moo fi weesu loolu moo waral ami ñu daal di jékki saay gisatuñu euh, li nga xamante ni kenn gisatul moom laay wax ndaxte ba mu doon di mel na ni xaw naa lëndëm mais ami jëf jooju ba nga xamante ni am na képp koo xamante ni nga nekk nga fi biir sa kër rek yaa ngi lijjanti rek nu ñu daal di taalee courant bi man ami loolu daal moom ma daal gën a marqué bépp kilifa bu nekk ci biir bépp kilifa bu nekk ci biir euh, sa sa sa kër rek yaa ngi xool ni nga xamante ni courant bi mu ngi ñëw wante ami bu weesoo màggal gi bu weesoo jaamu yàlla gi nga xamante ni moom la ñuy jaamu ami bu ñu we gande ba pare ami xam nga la moo ciy des dem tëdd fu nooy di naan lu sedd di tëdd foo xamante ni yaa ngi koy wax léegi foo dugg am na clim clim moo fa moo fa am te loolu lépp ngir kan la rek Serigne Touba Xaadimu Rasuul mhm. santal kaay leen santale ma yàlla moom la mhm, wax mhm. moo tax lépp def dañ cee da da cee bokk lépp loo xamante ni def nañ ko fi rek ci lu mbaax rek lépp rek moom moo tax te xeeb te xeeb nañ ko aussi mu nekk loo xamante ni tamit dafa doy waar courant bi moom kenn mënu kaa téye nag matale waaw nañ ko mhm. daal di jéem a xool rek nan la ñuy xoolee rek ba mhm. daal di koy matal tuuti rek mhm. wante kenn mënu kaa téye mu bañ mu bañ a mu bañ a coupé xanaa rek moom moo ci am ndax fa euh, fu nekk rek courant dafay nekk euh, li nga xamante ni dafay daal di dafay daal di coupé am njëriñ waaw mm, ci màggal gi lool ndaxte euh, courant bi frigo yi la ñuy seddalee voilà yooyu yooyu nga xam te ne bëgg mu ko wax ture ture yeeg looyee nii di ma di ma Mm-hmm. waaw tëdd fu tëdd fu sedd ak yooyu tëdd fu sedd fi waaw sedd gi la waaw di la dal fen mm-hmm. bi moo ko moo nekk li nga xamante ni moo ñu ko liggéeyal mm-hmm. kon boog euh, ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax voilà très rapidement takku jóg euh, courant bi nga xamante ne gis nañ ne daal xaw na am ay jafe-jafe euh, tuuti fi nga xamante ne moo di fii ci biir Touba Mbacké jërëjëf soxna Amina Touba daa soxla plus rek pilis rek la soxla fi mu toll nii te courant benn wax dëgg yàlla am na nu mu def noonu la war a mën a mel ndax néeg yi ci Touba sax doyul ma wax la ko néeg yi ci Touba doyul am na ñoo xam ci bitti la ñuy toog am na ñoo xam ci bitti la ñuy fanaan kon nan sant yàlla bu baax ñaanalaat état bi fi nekk mu gën a renforcer Touba ak fudul Touba fépp foo xam événement yu mag yi dina fa am nan nan saafara jafe-jafe ya fa nekk ñu dundandoo ko. ndax lépp Sénégal rek lay xewe te fu ne fu ne la nit di jógee. vraiment ñi nga xam te ne ñooy di suñu ay mbokk internet di safoo suñu ay euh, programme jaajëfal nañ leen bu baax a baax émission le soir la woon te nag